bi nga xamante ne dañ koy instrumentaliser léegi nii ñu ngi yëgal aussi ci ay xibaar que ni marche bi nga xamante ne marche pacifique bi nga xam ni euh, rassemblement bi nga xamante ne F24 déposé woon na ko euh, mujj nañ ko ko nangul euh, te suba la ci ajjuma gi 15 heures fële ca place de l'obélisque Adjaratou ah c'est très bien comme euh, autorisé nañu marche bi c'est très très bien mhm. parce que ça un bon moment que je pense que ñoom ñu ngi amoon euh, yéene def ay doxub ñaxtu xam naa vraiment ñoom daal euh, duñu duñu découragé parce que li ñu déposé te accordé wuñu leen ko moo ëpp foofu li ñu déposé ñu accordé leen ko buñu leen ko accordé mhm. Euh, c'est une très très bonne chose et que euh, dans la suite logique des choses si nga xamante ne tout cas noonu la terrain politique bi war a a tëddee on am plus de liberté d'expression par rapport ak euh, li nga xamante ne moom mooy doxalinu réew mi ñu am yéene euh, joxe seen ay position par rapport à telle ou telle autre question mhm. euh, via ay marche ay sit ak yeneen yu ni mel loolu droit constitutionnel la war nañ leen ko mën a accorder donc c'est une bonne chose pour F24 et on espère que li ñu ci soxla en termes de mobilisation daanu ko am ba mu mat sëkk donc aujourd'hui cette plateforme bi nga xamante ne moom lay wax ni dañuy xeex ci wàllu instrumentalisation de la justice mm-hmm. euh, ça aussi c'est un très bon procédé parce que xam nga dafa am loo xamante ne pour man jàpp naa ne étape par étape la oui euh, ci euh, ni nga xamante ne noonu la nu war a xeexee stratégiquement parlant mm-hmm. pour que ñu mën a dindi euh, ou en tout cas euh, teggi wala wàññi bokk lu bëri ci loo xamante ne xëy na dañu ko dee ñaxtu ci suuf. Mm-hmm. bu ñu amee ñu am courage wu euh, yëkkati porter combat bi loolu dañ leen di gën a encourager à que ñu ñu gën cee jëm ci kanam. Euh, parce que nag vraiment euh, je pense que les Sénégalais ont beaucoup à dire par rapport ak ni nga xamante ne noonu la sunu justice di doxee notamment concernant euh, aujourd'hui la question liée aujourd'hui à Euh, Ousmane Sonko ak situation bi nga xamante ne moom la nekk xam nga na bu démb j'ai la chance de faire une émission ak Moustapha Sarré mi nga mhm. xam ne moo jiite euh, daara yi Cheikh Anta Diop mhm. parce que Pastef la woon léegi ñoom ñu tuddee ko daara yi Cheikh Anta Diop mhm. euh, bi nga xam ne daanaka mooy seen école de parti ci am occasion bi ma ko di ko laaj ne ko est-ce que ñoom aujourd'hui ils n'ont pas un, un peu dormi sur leur laurier euh, par rapport ak situation bi nga xamante ne moom la Ousmane Sonko di dund est-ce que waruñu woon seen tune euh, Ousmane Sonko daanu ko jàpp à un moment donné mu tontu ma ne ma Ousmane ci boppam ci ay réunion daal na leen wax naan leen à tout moment mën nañ ñëw arrêté ma mën nañ ñëw jàpp ma mais seulement ñoom dañoo jàppoon ne combat bi dafay dox ci diggante Pastef ak parti Benno Bokk Yaakaar maanaam mhm. ci terrain politique bi lay yem du ñu utiliser ay appareil état comme moom ni mu ko waxee pour mën a aujourd'hui ñu faagaagal leen dissoudre seen parti daanaka jaay nañ leen euh, doole ci lu bëri ba euh, ñoom ils ont reçu un coup voilà mhm. et léegi nag li nga xamante ne moom moom laa ko wax lay feddaliwaat rek euh, fii sur 2A TV mooy ne mhm. aujourd'hui ko dafa am un phénomène boo xamante ne ni yàlla moo ko sàkk muy Ousmane Sonko et la personne de Ousmane Sonko dépasse même de loin li nga xamante ne moom la patriote yi ou parti Pastef bi di yëngu ci saa su nekk ci lu jëm ci wàllub liggéey organisation de parti stratégie politique pour mën a yegg fi ñu mën a yegg maanaam ci gàttal aujourd'hui ñoom euh, liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy liggéey di ko nas moo xam ci suuf wala ci kaw am na solo waaye yàlla daf leen ciy dimbali kàttanal leen du ma où ki nga xam ne moom mooy seen leader euh, yàlla def na ko ci xolu nit ñu bari. Mhm. ñoo xamante ne bëgg nañu bëgg nu ko ba noppi euh, te dara du tax nu ban ko te leeralal na ma itam ne ñoom Pastef ci boppam. Euh, amuñu plan A B wala W ñoom euh, Ousmane Sonko est toujours éligible comme sa condamna sa condamnation n'est pas encore définitive et que mooy nekk seen candidat ci élection présidentielle yu 2024 mhm. te dara mënu koo tere nekk président lu dul yàlla suñu borom voilà donc loolu itam xëy na a baax na fàttali ci ñi nga xam ne euh, c'est des patriotes te il se soucie de de l'état de santé de Ousmane Sonko qui se porte bien d'après les bonnes informations yi ñu am et que mu ngi rétablir mu ngi tane c'est vrai que grève de faim bi xaw na ko laal ci lu bëri parce que li mu toog ci ay fan te lekk ko naanu ko dafa bëri donc mm-hmm. affaiblir na ko mais il est en bonne voie de guérison te yàlla na yàlla gën a fëgg boppam yëkkati ko li tax nag ñu koy wax c'est parce que tout simplement aujourd'hui s'il y a une opposition qui existe dans moi c'est Ousmane Sonko il pas beaucoup de leaders de l'opposition qu'on voit s'activer par rapport à des questions yi nga xamante ne moom moo intéressé le le le sénégalais ci doxalin bi ak ci surtout rendez-vous bi nga xam ne foofu la ñu jëm des élections présidentielles yi donc aujourd'hui euh, le combat doit être mené dans les dans tous les sens c'est-à-dire que Euh, quand on dit le combat mooy ne la communication warul mën a am rupture par rapport ak ñi nga xamante ne moom mooy yéene bi nu fas yéene am ci ni ñu bëgg doxalee réew mi ou en tout cas stratégiquement li ñuy teg ci élection yi pour mën a jànkonteel ak yeneen euh, yeneen parti discipline yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk euh, que ça soit les partis de l'opposition que ça soit les partis au pouvoir je pense que l'heure est en ce moment travailler ou finaliser li nga xamante ne moom mooy seen stratégie bi jëm ci wàllum élection yi ñu jëm élection présidentielle yi ça doit être des un rendez-vous à préparer un rendez-vous boo xamante ne ni euh, lu nit ñi war a war a war a mën a taxaw bu baax a baax sans compter que aussi na bu dafa am benn phénomène boo xam ne bu nu ko jël un peu à la légère parce que mm-hmm. luy ama am doole la ci élection yi ñëw mooy ne suñu ndaw yi nga xam ne ñu ci bëri ci ñoom jël nañ yoonu ni Nicaragua gi wala ñu ngi jël ci yoonu mbëkk mi pour bëgg a génn réew mi na bu on ne compte même plus le nombre de jeunes qui ont quitté ce pays là mm-hmm. te ñooñu itam électorat la mm-hmm. bu am doole xëy na ñu ñàkk ñàkk ñàkk espoir euh, mooy tax dëgg-dëgg ñu ñu ñu décider jël yoonu géej gi wala jël yoonu ni Nicaragua bi comme ni ñu koy euh, médiatiser saa su nekk Et dans tous les cas, cet électorat-là aussi est à prendre en compte. Mhm. Et de manière extrêmement sérieuse. Parce que gis nga ci élection yi ñu jëm amul benn parti politique boo xamante ne da war a tëdd dormir tranquille sur tes lauriers mhm. en te disant que yëf yi sotti na ba pare. même bu fekkente ne am na ay prémices yuy wane ne euh, am na foo xamante ne xëy na foofu la nit ñi gën a jublu foofu nag la liggéey bi gën a tare mhm. ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci wàllu woowee ci lu jëm ci wàllu organisation bi ak ci lu jëm ci wàllu waajtaay bi dëgg-dëgg nag bu ñu fàtte ne ñu ngi jublu également ci ay parrainage donc loolu yëpp c'est des moments importants yoo xam ne tous les partis politiques doivent travailler là-dessus euh, pour pouvoir passer li nga xamante ne moom mooy la barre euh, des des la barrière des comment on appelle ça des des des par des parrainages. Mm -hmm. et au-delà de tout cela jublu euh, vraiment ci li nga xamante ne moom mooy campagne électorale bi nga xam ne ci lañuy ñu jëm. et donc aujourd'hui dans cette minute de de de Ousmane Sonko tout ce que je peux dire euh, c'est que en entendant les propos du professeur Sarré mu ngi wane ne au moins dëgg la ñu ci bari ci ñoom jàpp nañu leen. ñu ci bari ci ñoom ñu ngi ci kaso bi parce qu'on a relaté le cas de Bassirou Diomaye Faye bi nga xam ne dañoo jël ay charges yu gën a diis teg ko ci kaw maanaam li ñuy toppee Ousmane Sonko daanaka moom lañ koy toppee rek moom euh, et loolu je me demande quelle est la pertinence alors que Bassirou Diomaye fay mu ngi ci kaso bi ba noppi mm-hmm. pourquoi prendre d'autres charges teg ko ci kawam nee nañ lépp lu ñuy toppee Ousmane Sonko lañ koy toppee ba mu des euh, li mujj xew mooy bi ñu koy arrêté jëlum téléphone bi. ak mbirum volu téléphone bi. loolu rek lañ ko toppee waa léegi man may laaj tey. te loolu da ko fekkul ci biti xam naa. voilà léegi man li may laaj na bu mooy. Mhm. lan moo tax léegi nii lañu ñu waat encore Bassirou Diomaye Faye pourquoi mhm. maintenant alors qu'il est déjà en prison depuis un moment. Mhm. qu'est-ce qui s'est passé entre temps enquête bi da doon continuer ñu dem ba gis ne finalement li ñu toppee kii mën na ko toppee kii de tempérament bi nit ñi xam ci moom euh, mooy mën a reetaan mooy sedd mooy calme mooy dal vraiment. Euh, personnellement enfin que ça soit de sur ses postes et tout ça mosuma gis benn appel boo xam ne xëy na peut-être lancé na ko directement bon peut-être que ñoom xëy na <laughs> information yi ñu am ñun amuñu ko mais dans tous les cas moi la question que moi je me pose mooy pourquoi en arriver là et pourquoi charger encore une fois de plus pendant qu'on est à quelques mois des élections pour un parti boo xam ne dissoudre nga ko ba noppi mm-hmm. et que seen leader tëj nga ko ñu bari ci ñoom tëj nañ ko ñoom ñi nga xamante ne ñoo ci des di ci yëngu euh, sentir nañu dëgg-dëgg ne jël nañu coup bu baax a baax. et ce faut faire donc comme coup xës na ba am na bu nañu moytu kat appui rek. Mm-hmm. te loolu moom euh, tëdd jaaxaan nelaw. Euh, rek mooy mooy tax li nga xamante ne ñoom bëgg nañu ko mu mu jàll par la solution facile. Mm-hmm. alors que euh, pour moi le combat doit être doit continuer à être mené ñi nga xamante ne aussi ñoom ñooy euh, f quatre seen ndaje mi ñuy def au-delà de la personne de Ousmane Sonko li ñu war a xeex mooy que la démocratie soit respectée fii ci Sénégal que la liberté d'expression également soit respectée fii ci Sénégal que aucun leader politique bi nga xamante ne am nga yéene. nekk ci réew mi liggéey ci réew mi wala am ay aspirations politiques euh, bëgg a nekk président de la république ku mu bañ am benn voix boo xamante ne foofu lañ lay mën a jaaree pour mën la ko xañ mm-hmm. que ñu mën a respecter également li nga xamante ne moom mooy la volonté du peuple sénégalais loolu c'est hyper important parce que bu ñu fàtte ne doole bi dëgg-dëgg askan wi ak peuple bi ñoom ñoo ko moom mm-hmm. euh, et au-delà de tout cela que ñu mën a aujourd'hui rétablir euh, les bases de démocratie bien que ça va pas être facile parce que lu ci bëri ci ñoom ci li ñu seetlu ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ni ñuy doxalee réew mi dëgg-dëgg mm-hmm. mën nañu wax ne am na lu bëri ci àq ak yelleefu doomu aadama yoo xam ne vraiment il y de des questions encore à se poser euh, ci interdiction yu bëri yi euh, ci vraiment climat bi nga xamante ne foofu lañ ñu encastré dugal nu fa mm-hmm. ci les nouveaux mots qu'on a appris vraiment à ni réew yu mel ni ay terrorisme rébellion yeneen yu ci topp mm-hmm. ak ci yeneen ak yeneen yoo xamante ne mu ngi fi et se battre également pour terminer sur ça mm-hmm. pour la libération de tous ces détenus yi nga xamante ne jàpp nañu leen tëj nañu leen ci kaso bi yàgg nañu fa lool lool lool lool ba dañuy dem ba dañ leen di fàtte sax ku mel ni Cheikh Oumar Diagne on l'oublie même ah, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñoo fa jiitu sax Ousmane Sonko jiitu fa ay Bassirou Diomaye fay jiitu fa ay sénégalais yoo xamante ne dañ leen a jàpp ci ay manifestations yeneen yu ni mel je pense que lu combat doit être mené ci coté boobu. nga xam ne bu ñuy jublu ci ay élections au moins on est de partir sur des bases solides et au yoo xamante ne dina ànd ak paix et dina ànd ak stabilité réew mi. Mhm. jërëjëf euh, Ajaratu léegi nii rek euh, bi ñuy euh, wax dañu jum dañu ne suba àjjuma man moom jàpp leen ne maa ngi fi mais nekkuma fi émission bi en direct la mais man man maay différé fi mu toll nii. alors rassemblement bi c'est pour demain à la place la nation. c'est samedi pour c'est pour aujourd'hui ah c'est pour vendredi.